ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam di sant sëñ Touba di fàttali koo ko ñaanal jëmm ju baax ji nga xam ni moo fi bàyyi ko muy sëriñ Atou Diagne doonoon jëwriñu sëñ Touba euh, ba ñuy doon ndaw lañ xàmmee woon jëmmam ci liggéeyu sëñ Touba bi ba tey jii suñ borom moom ko muy jëmm joo xam ni euh, ni ma ko waxee woon rek am xëyam akum ngontam bëccëgam ak i guddeem lépp sëñ Touba la ko jox Euh, jàpp nañ ni daa wàcc dafa liggéey maanaam euh, gopp bu buy liggéey ci tool ba damm la rek waaw ni ñaan xandeer bu bu dammee ci waar dafa wàcc lool lool lool rek la euh, muy jëmm joo xam ne itam ku ko mës a xam rek ci lii rek nga ko xam mooy liggéeyal sëñ Touba <coughs> bisam bi ak bisam bu njëkk ba mooy bis bañ koy denc ak bisub tayam bi wane ni ne nekkal sëñ rek mooy li am njariñ ndax lii kenn mënu koo misaal ci lu dul ak màggal lii ak màggal rek ci lañ ko mën a misaal mbooloo mii bàggante bi dugg a génn bi ak màggal rek nga ko mën a misaal ak màggal la itam nag waaw ah, ndax jëmmam toll na noonu la génn na sëñ Touba lu ñu toll sëñ nag boo ko defalee ni nga toll bu lay fay ca nam toll rek la lay fayee loolu moo waral bisam bii ak ak melokaan yii nit ñi mel ci moom eh, xawma ci lu lu ne ca àjjana ya waaye bu dellu si waatoon jamono mhm. lu mu liggéeyaloon sëñ Touba dana ko fulaat junni ngir xam ne liggéeyal sëñ Touba rek mooy li am njëriñ mhm. noo ngi ñaan nag yàlla dool li ko yërmande li ko barke fam tëdd yàlla taas na ci barkeem noo ngi koy jaal ñëpp di ko masaw ñëpp ndax euh, ab bànqaas ci yoon wi moo moo fàq mhm. waaw loolu lañ ko mën a gisee ab bànqaas ci yoon wi moo fàq di koo xam ne yitteem xam-xamam dooleem